léegi ñun dañu owoon ay booru 10 heures 47 pour benn feu de magasin au Auchan Liberté 6 extension bu ñëwee si lieu yi gis neen benn lakk-lakk bu bu yemee may léegi nag si kaw lool bu ñu xoolee lu ñu njëkk def mooy suñu premier action yu ñu def mooy protéger kër yu nekk si wetam yi parce que dafa doon menacer kër yi bu ñu protéger kër yi ba pare ñu wax yëgal ñu ni am na benn groupe électrogène boo xam ne am na 1000 litres gasoil bu nekk si côté bi. ñu protéger ko balaa boobu tam di jël tàq-tàq si kaw action yooyu bu ñu paree si lañ def à l'extinction totale dugg si biir fay xal bi si fay lakk-lakk bi si biir. mën nañu wax ne léegi danger amatul ci lakk comme on maanaam xal yi sëkk nañ ko mënatul génn si fànn bu ñu ko yemale. est-ce ñu ci am ay gaañu gaañu. est-ce que lu waral bi la non lu waral bire de lakk ñun xamaguñu ko mais comme police mi ngi fii sur les lieux ñoom suñu paree dinañ def enquête bi après ñu xam lan moo waraloon lakk-lakk bi. ci yàqu-yàqu yi. yàqu-yàqu yi moom bëri na am na yàqu-yàqu yu bëri yu ñu constaté mais suñu paree yëpp si def évaluation après ñu doog xam le total. mais amul ay nit ñu ci wala ñu ci ba fii ñuy ñuy wax ak yéen amagul benn nit bu si blessé ak benn nit bu si gaañu.